sa le président Alassane Niang. Nous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions de votre présence. Nous aimerions remercier à ce titre tous ceux qui ont été présents depuis le début de cette lutte, depuis le début de ce combat, puisque nous considérons que nous allons commencer un combat de vie pour le peuple sénégalais, pour l'intérêt du peuple sénégalais. Donc nous voudrions chaleureusement remercier les autorités religieuses qui ont bien accepté de venir nous rejoindre et surtout de gratifier de leur prière cette cérémonie si solennelle. Nous leur en remercions et nous prions le bon Dieu qui leur accorde longue vie et une bonne santé. Parce qu'ils sont considérés comme les soupapes de sécurité de notre société. Et ça, c'est une évidence. Et tout le monde, en tant que Sénégalais, le comprend ainsi. Je voudrais également remercier les chers membres de Jitelwaret, ces charmantes dames qui sont là, et tous les autres membres de Jitelwaret qui sont là, surtout les membres qui ont accepté de quitter les différentes régions du Sénégal pour venir représenter dignement toutes les sections de Jitelwaret qui sont déjà implantées dans le Sénégal. Nous aimerions également remercier toutes les associations qui ont accepté dès le début du combat du président Alassane et de Djitel Waref qui ont accepté de nous rejoindre avec conviction, sans rien demander retour, simplement parce qu'ils croient au président Alassane et ils croient en son projet. Et Inch'Allah, les Sénégalais qui vont le découvrir vont également croire en son projet, si Dieu le veut bien. xool ya fa ne xool ndax dem nañu ñam nañu xool nañu la yóbbu bu ñuy dellu duñ do yóbbu leneen la indi woon duñ ko delloo kon ñun li ñu am dañ koy delloo ci suñu réew loolu moomu indi ma sampal ko nag comité ca Parcelles Assainies unité 13 man Adja Andi Issa Seck mii taxaw maa def loolu ngir bëgg Al Hassane Niang mii toog te tey laa ko mës a gis gaynde guraan nag di fifi ñëw Sénégal ni ma tànn Issa ma ni ko naa mu ni ma dama lay seet si dajaleel say nit te daan ne nag politique fekke la ak wax soo dul fekke waxoo bokkoo ca politique da ngay fekke di wax di yóbbu message bi di jàll bu ñu jógee fii ku fi toog jàllaleel message na dugg li naan la bagage si dugg na message bi dugg waaw bu duggee jàll dugg ci boppi nit ñi ak cerveau yi dinañu xam ne am nañu président xale la am na jom nangu naa liggéey xalaatul lenn ci alalam waaye dama koy delloo biir Sénégal jigéen ñi sonn nañu quatre heures du matin la ñuy jóg dugg ci biir marché yi ñu ngi ci marché jën yi ña nga marché syndicat ngi ci taabal yi ñu ngi ci marché yu yi diwlin gi seer na ceeb bi seer na xam-xam yi jeex na bopp yi toj tabarkalla góor yi mënta tàllal loxo bari kon bu nu ñëwee fii joge Dakar ci suba la ñu ñëw yendu ak suñu doom yu am jom yii yendu ak suñu doom yu baax yii kon bu nu ñëwee sànni ci ñaari kàddu yaakaar naa du aj kon nag ñi ngi ñaanal président Al maa la toogal parcelle unité 13 di jokkoog première dame heure bu ne ak Fifi ak Aïda Sarr tabarkalla xale yu baax yooyu nga xam ni ñi ngi lay liggéeyal nag liggéey bu mucc ay waaw yaa ngi ci biir waaye ñoom ñi ngi ci biti ci base bi ndax base bi moo am solo ñoom ña nga cay liggéey ña ngay wax ak nit ñi ña nga leen di sensibiliser ba kenn ku ci nekk sa ñaata gisu la te loolu am sens la wax jeeg tàccu jeeg lépp looloo ko am solo ba fay kii taxaw nag day sama doom di ànd ak sama doom ca Belgique di ànd ak xale yi ñuy liggéey di ay grande dame kon bu ñëwee fii am na ci parole waxal le représentant du Khalif général de Bambilor, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, chers la date du 14 août 2024, 2021 Calapsus, la date du 14 août 2021 marquera l'histoire politique du Sénégal d'un nouveau saut. Elle aura été mise à profit pour consacrer notre rentrée politique et informer l'opinion nationale et internationale de la naissance d'une nouvelle formation politique dénommée Jiitel Wareef, le devoir en mouvement. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de rendre hommage, un hommage appuyé à mes parents. Formuler des prières de santé et de longévité pour ma mère ici présente. M'incliner avec respect devant la mémoire de mon père, Alun Badaragnan. Également, m'incliner devant la mémoire de nos disparus à qui nous avons une pensée chaleureuse ce jour. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à la communauté laïenne, aux populations de Tiénaba, suite au rappel à Dieu du Khalif général des Layennes, mais également au Khalif général de Tiénaba qui nous ont quittés il y a quelques jours. Nous présentons nos condoléances aux populations de Tiénaba, aux populations euh, laïennes, mais également à la Ouma islamique. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner un compagnon de miséricorde et puisse-t-il éclairer leur destination de son éternelle lumière. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, la tenue de notre rentrée politique, vous le savez, est marquée par un contexte sanitaire particulièrement difficile. Nos pensées vont à l'endroit des familles, éprouvées et éplorées par les effets de la pandémie. Cette situation convoque un examen de nos responsabilités à la fois individuelles et collectives. Mais elle convoque également une prise de conscience renouvelée pour ensemble venir à bout de cette pandémie qui n'arrête et qui n'a de cesse de faire des ravages. Comme vous le savez, nous avions prévu de faire une rentrée politique en grande pompe. Des diligences avaient déjà été prises pour qu'elle soit organisée au sein de l'auditorium de Thiès Mais la responsabilité commandant, nous avons décidé de réduire la voilure de notre événement afin que l'événement puisse être organisé sous le format que vous connaissez actuellement, notamment en utilisant le format digital. Qu'à cela ne tienne, je voudrais donc m'arrêter un instant pour adresser une pensée à l'ensemble des personnes qui avait tenu à nos côtés ce jour, physiquement, mais dont la présence n'a pu être possible du fait des restrictions qu'on s'est astreintes du fait de, donc, de la pandémie qui sévit euh, donc, dans ce pays, mais également à travers le monde. Nous remercions euh, mesdames et messieurs de la presse, notamment la 2STV, par le canal et le concours de qui Cet événement est retransmis en direct. Chers amis, et vous camarades qui n'avez pu effectuer le déplacement, nous saluons le sens de votre sacrifice, nous louons la portée de celui-ci, sachant que votre absence physique à cet événement n'en réduit pas moins votre mérite et notre reconnaissance de ce dernier. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis en cette circonstance pour vous narrer la genèse de Jidal Waref, le devoir en mouvement, mais aussi vous expliquer les contours de notre projet politique. Jidal le devoir en mouvement, est une promesse. Jidal le devoir en mouvement, est une promesse, d'un projet de société qui ambitionne de placer le citoyen sénégal, sénégalais au centre de l'ensemble des décisions publiques et de l'action publique. Jitel Waref, le devoir en mouvement, est également à la fois le fruit d'une réflexion individuelle, mais également d'un travail collectif. Un travail collectif mené dans la perspective d'offrir à notre pays une nouvelle offre politique adossée à un humanisme érigé en doctrine politique. quinze années de pratique de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles au sein des États ACP façonnent une vie. Elle façonne une vie, mais elle en marque également les contours. Nous le savons. Elles soumettent vos rapports vis-à-vis -vis du reste du monde avec plus de recul et en imprègnent le sens avec complexité. Elles vous imbibent des interactions géopolitiques et déterminent votre regard sur le positionnement de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier. mais également le positionnement que le Sénégal devrait avoir au sein du Conseil des Nations. Elle structure votre appréhension des problématiques de notre processus de développement, nous ouvre à la complexité de celui-ci, vous ouvre à la complexité de son fonctionnement et vous éclaire des réalités qui obstruent le processus et la marché de développement de notre pays. Elle place sur votre chemin des destins qui marquent et qui vous prouvent à quel de compétences constitue une chance, sinon la seule, sur laquelle nous devons compter pour asseoir le développement de notre pays de façon durable. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, 15 années de pratique de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles vous marquent. Elles vous permettent de toucher du doigt les maux de notre pays avec un prisme qui ne vous laisse pas insensible à leurs causes et les conséquences qui Elles vous permettent d'entrevoir les souffrances du peuple avec une sensibilité qui ne vous laisse pas indemne. Elles vous permettent de constater la difficile condition des femmes malgré le caractère pourtant éminent du rôle qu'elles n'ont de cesse de jouer qu'elles de cesse de jouer comme partition essentielle dans la longue marche et dans, dans, dans la passionnante marche de l'histoire de notre pays. Elles vous permettent de situer la place que l'action publique devrait conférer qui, il faut le rappeler, c'est un truisme que de le dire, sont de plus en plus relégués sur les strapontins de l'histoire de ce pays. Mesdames, Messieurs, distingués et invités, chers compatriotes, 15 années de pratique de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles vous marquent. Je l'ai dit, je le répète. Elles permettent d'appréhender les multiples enjeux du développement avec une telle acuité qu'elles vous proscrivent l'indifférence, et qu'elle interdise le désengagement politique. A contrario, mesdames et messieurs, elle vous ouvre les solutions aux problèmes de notre pays, insuffle dans votre esprit à la fois l'idée mais la raison de l'engagement politique. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est dans un tel contexte que nous avons fait le choix de l'engagement à travers la création de Guy Waref, le devoir en mouvement. Au terme de ce choix, nous avons entamé un processus de réflexion et de travaux conceptuels qui nous à passer en revue des politiques publiques, des stratégies de développement, des lettres de politique sectorielle que le Sénégal a menées depuis les indépendances jusqu'au référentiel économique du plan Sénégal émergent. L'idée derrière cette immersion documentaire en œuvre par notre puis proposer un socle de nouvelles réformes, essentielles dans le cadre d'un nouveau projet de société. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, si ce travail de fouille accompli avec rigueur nous aura permis de mettre la main sur une littérature à foison de l'action publique, une des conclusions à laquelle nous sommes parvenus porte généralement sur la faiblesse de nos institutions, sur la faiblesse de la gouvernance telle que à qui nous confions les deniers de ce pays. C'est pourquoi Jitel Waref, le devoir en mouvement, a fait le choix de fonder la construction de son projet sociétal sur un référentiel unique de valeurs cardinales et d'objectifs stratégiques. Ce référentiel des valeurs a été pensé et conçu pour éclairer et baliser l'ensemble des décisions devant mener à la conception puis la mise en œuvre de l'action publique au service de l'intérêt général. Ce référentiel des valeurs vise en outre à asseoir une compréhension commune ainsi qu'une communication claire entre l'ensemble des acteurs et des parties prenantes concernés par les mesures que ces valeurs sous-tendent. Ce référentiel des valeurs a également été conçu pour porter de façon précise les valeurs cardinales devant sous-tendre le projet sociétal, ainsi que le programme politique de Guy Waref, de Devoir en Mouvement, à savoir Notre projet de société ambitionne d'aller dans, d'une réelle appropriation nationale de l'État. Une appropriation fondée sur la responsabilité à la fois individuelle et collective, l'honorabilité, la solidarité, la crédibilité des institutions et de leurs animateurs. Des valeurs économiques. Nous voulons bâtir une société qui promeuve des valeurs économiques par le sens du métier. Par le sens du métier, de la sanctification du travail bien fait, de production de biens sans marchandisation aliénante, d'exigence de redistribution des biens et services de l'ensemble et au bénéfice du corps social. Les valeurs écologiques ne sont pas restes. Nous voulons fonder notre projet de société sur des valeurs écologiques par un sens sacré de la terre, car la terre appartient à l'être humain et non l'inverse. Les valeurs culturelles ne seront pas en reste. Elles constitueront un pilier essentiel de notre projet de société par un ancrage au patrimoine africain, spirituel et des acquis du progrès technique et universel. Enfin, ce référentiel des valeurs que nous avons conçu a été pensé pour guider la conduite de l'action publique selon des principes directeurs au nombre desquels on peut citer, entre autres, le sens et la fonction de notre projet sociétal qui est d'essence humaniste, l'humanisme. Voilà la nouvelle doctrine que nous voulons consacrer pour la conduite de notre projet sociétal. L'être humain, ainsi que le milieu qui l'entoure, constitue la raison principale et principielle de tout processus de développement. Le développement de l'être humain obéit au principe de l'ordre divin qui commande l'ordre cosmique ainsi que l'ordre social y afférent. Ceci en vertu du principe d'équilibre, d'harmonie et de complémentarité. le respect et la préservation du milieu naturel, biologique et minéral qui sert de substrat existentiel. La préservation des supports physiques, biologiques et minérales abritant à la fois l'histoire, l'héritage et l'esprit de nos ancêtres. Ceci en vertu du principe d'exigence de continuité de la vie humaine. La subordination des pouvoirs politiques à l'exigence permanente de l'ordre social, proscription définitive et exclusion des pouvoirs de groupes humains La responsabilité sociale par raison d'aptitude et de mérite en vertu de la règle d'application de l'effort continu, de reconnaissance et de promotion de l'effort individuel. Ce qui implique le sens élevé de la dignité humaine, de justice sociale et d'équité territoriale. Le respect total de l'intégrité de la personne humaine et de sa communauté, dans ses composantes, son esprit, son corps, son nom, sa réputation, ses biens matériels et immatériels. L'impérieuse exigence de l'État et la communauté de garantir aux citoyens le maximum de possibilités de développement physique, mental et moral en vue du, de son plein épanouissement, de, de, la, de sa personnalité de citoyen. Ceci en vertu du principe d'auto-évaluation, évolution assistée. L'application du principe de justesse, d'équilibre, d'équité, et de justice entre les communautés, tout comme celle-ci entre les espèces vivantes de la nature. Ceci implique l'approche terroir comme espace d'équilibre, de stabilité, de paix entre les êtres humains et la nature. La reconstruction d'un projet sociétal fondé sur la conception originelle de l'unité du genre humain. Ce qui implique le refus conscient et permanent de toute forme de racisme, de sectarisme, de communautarisme, d'ostracisme et d'intégrisme. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, si mon adresse vous a permis d'avoir un aperçu de notre projet de société, des principes et valeurs qui en guident le fondement, je voudrais vous annoncer qu'au titre de nos objectifs stratégiques, Digital Waref, le devoir en mouvement, compte conquérir et exercer le pouvoir d'État dans le cadre de la Constitution, des lois des conventions internationales en vigueur au Sénégal, ainsi que dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, des règles de bonne gouvernance associative. Voilà notre premier objectif stratégique. Nous comptons proposer au Sénégal et aux Sénégalais un nouveau projet sociétal fondé sur des lois, des codes éthiques explicites sur les évolutions scientifiques, l'idéologie du progrès de l'esprit humain en réaction et en opposition à tout obscurantisme irrationnel de contre-valeurs amorales Nous voulons œuvrer au raffermissement d'un État-nation intégré, socle d'une société de paix, d'égalité, de fraternité et de liberté, d'abondance et de justice sociale au service du peuple sénégalais et à son service exclusivement. De justice sociale au service du peuple sénégalais. Je le répète une deuxième fois. Nous entendons consolider la démocratie avec une détermination ferme et irrémédiable. Et la même détermination animera nos actions et leur énergie pour la consolidation de la démocratie, l'état de droit, le développement, la sécurité, l'effectivité des droits humains, le respect des principes de bonne gouvernance, la paix et la stabilité de la communauté nationale. C'est à ce prix que Jital Waref, le devoir en mouvement, engagera ses réflexions dans la conception de l'action publique. Nous veillerons à l'exigence de l'État et la communauté de garantir aux citoyens sénégalais le maximum de possibilités de développement physique, mental et moral en vue de son épanouissement. Nous travaillerons sans relâche à soumettre l'État et ses démembrements à l'exigence permanente de placer le citoyen et l'ensemble des citoyens au centre des politiques publiques qui seront menées dans l'intérêt euh, général au rang et ceci sera érigé en termes de principe de gouvernance. Notre projet sociétal a été pensé est conçu de manière à revisiter l'espace territorial sénégalais en tant que base de l'équité, la distribution des ressources, des activités, des modes d'occupation du sol, des mégastructures d'équipement, etc. Cette approche sera privilégiée dans le but d'éviter toute logique d'accaparement, de pillage, de prédation et de subjugation économique du capitalisme multipolaire. Nous ferons appel à des processus participatifs de prise de décision et soumettons toute grande décision relative aux grandes options de droit d'usage du sol à des consultations populaires en vue de parvenir à des consensus populaires. La promotion du panafricanisme sera un élément de priorité qui sera érigé au rang de priorité et constituera une stratégie de consolidation de la souveraineté des États africains et du Sénégal en particulier. Cette stratégie mettra en avant la valorisation par l'État et les communautés des langues africaines telles que parlées au Sénégal, à l'échelle nationale, mais également internationale, selon des principes d'égalité, d'équité, d'harmonie et de complémentarité. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, nous voulons fonder un projet sociétal qui renforcera et pérennisera le rayonnement international du Sénégal en s'appuyant sur la richesse de son patrimoine culturel, notamment dans son expression plurielle et sa dissémination à travers le monde. nous voulons fonder la qualité de notre coopération avec les pays tiers selon le principe de respect réciproque des règles de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Nous voulons enfin bâtir un projet sociétal où l'État se constitue en autorité fédératrice, suprême comme instrument du peuple sénégalais, démuni de toute démagogie, de populisme électoral, qui garantisse la gratuité de l'accès aux services sociaux de base tels que Notre conscience nous interpelle et nous parle quand une personne perd la vie, faute de n'avoir pu payer un ticket d'entrée nécessaire à son admission à l'hôpital. Notre conscience nous interpelle, mesdames et messieurs. Elle nous parle quand le viatique et le confort moral, psychologique auquel un patient a droit d'attendre laissant, laisse la place à l'angoisse du paiement d'une ordonnance ou des radios prescrites dont les coûts exorbitants par avoir raison de la vie du patient. Notre conscience, notre conscience, mesdames et messieurs, nous interpelle. Et elle nous parle quand l'empathie du personnel de soins cède à cette indifférence qui ronge le patient et finit par avoir raison de sa vie. Nous ne pouvons plus tolérer de telles inéquités. Nous ne pouvons plus tolérer de telles inéquités. Nous ne devons plus accepter de vivre dans une société dépourvue d'humanisme. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes. Jitel Waref, le devoir en mouvement, est une promesse. C'est une promesse qui porte un idéal de société. Un idéal de société où la lancinante question de l'emploi des jeunes ne serait plus une hantise euh, des politiques publiques. Où l'emploi ne sera plus la préoccupation première de la jeunesse ou des femmes. Où l'emploi sera garanti parce que les options et les choix ne porteront plus sur des considérations politiques mais sur une vision prospective et réflexive adossée à une véritable stratégie assortie d'un plan d'action rigoureusement suivi. Nous avons l'ambition d'offrir à notre pays une alternative politique nouvelle qui s'inscrive dans une démarche dépourvue de, de la culture du lucre, tant nuisible au culte de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, Jitel Waref, le devoir en mouvement, a pour ambition d'offrir à notre pays une pensée stratégique, ainsi qu'une formation politique dont la doctrine sera guidée par des principes et valeurs d'humanisme. Dans un contexte marqué par les maux et les faiblesses en tout genre de notre société, ces principes d'humanisme sont les seuls garants d'une société équilibrée où les contours tenant et termes du contrat social seraient une réalité pour le corps social dans sa globalité. Je voudrais, avec ces propos, euh, mesdames et messieurs, adresser mes remerciements à l'ensemble euh, des personnes qui sont présentes dans cette salle, remercier euh, la presse, remercier la 2STV par le concours de qui nous avons euh, l'opportunité et la possibilité de passer euh, cet événement en direct. Euh, vous dire que nous avons fait le choix de l'engagement politique parce que nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas donner de nous-mêmes à ce pays. L'ensemble des personnes qui ont décidé de faire ce déplacement et d'être à nos côtés aujourd'hui, je pense à la famille élargie, à ma belle famille, je pense à mes amis, je pense aux membres sympathisants et militants de Jitel Waref qui ne ménagent aucun effort pour que l'événement qui a été organisé aujourd'hui puisse être une réussite. Je voudrais solennellement vous adresser mes, mes chaleureuses euh, euh, félicitations et vous adresser mes pour l'ensemble de ce que vous avez réussi à faire ce jour. Vous dire, également, euh, prendre à témoin euh, les citoyens, prendre à témoin la presse qui est là aujourd'hui, pour aussi adresser mes euh, remerciements les plus profonds à mon épouse qui est à mes côtés et à, mes côtés depuis plus de 15 vous dire que nous avons fait le choix de l'engagement accompagné de jeunes personnes pétries de valeurs et de principes. Et c'est ce que nous demandons à l'ensemble des citoyens sénégalais. Venez nous rejoindre dans le cadre d'un projet mené selon des principes et des valeurs. L'ensemble des actions que nous allons mener dans le cadre de notre projet seront guidées par ce souci. bu ko defee ma euh, ekkiti euh, yenn kàddu ci olof euh, yu gàtt ndax heure bi xoj nañu di wax ni ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp ñi fi teew di gërëm sama dëkkandoo yi nga xamante ne ñëw nañu def déplacement déplacement bi tey gërëm imam bi nga xamante ne moom moo jiite la grande mosquée de Cité Senghor gërëm le représentant donc du khalife général de Bambilor di gërëm le représentant donc de sëñ Idrissa Gueye gërëm samay goro yi fi toog euh, di gërëm sama xarit yi fi nekk euh, wax nañ ne ku lim juum waaye ma jéem rek euh, ndax nit ki boo amee mbégte il faut nga jéem di ko wane à travers li nga xamante ne moom mooy ay citation suñu jigéen yu yu ñaawal yi nga xamante ni macha allah lépp lu loo xamante ne antu na rek ci ñoom la seen loxo la jaar donc ma leen di gërëm. vraiment ci euh, seen i ci seen taxawaay ak ci seen i pas-pas ndax loolu la ñu soxla tey ci àdduna bi di wax ni ñun kat lenn rek moom moo guidé suñu action ndax suñu def politique waaye lu tax ñu décidé def politique c'est parce que comme yàlla def ñu jagle ñuy liggéey ci tabaxum réew ñu gis ni Sénégal mu ngi ci ay situation yoo xamante ne amatuñu sañ-sañi toog naan loolu suñu yoon nekku ci ndax ñun li ñuy def ñu ngi koy def li ñuy am ñu koy am wala li nga xamante ne moom mooy suñu liggéey moom doy nañu donc ñun duñu ñëw di engagé wu Sénégal bi ñu defee nag constat boobu ba taxaw ba xool ñu ne àkat ñun kat il faut ñu jóg soobu ci biir politique bi ndax ku deful politique ku ñëw warul def politique def ko à sa pla kooku waroo ko euh, ngaññi wala waroo ko mere bu nekkee dafa def loo xamante ne euh, ànduloo si loolu moo tax ñu jóg jël suñu responsabilité ne lépp loo xamante ne Sénégal soxla na ko ci wàllu xalaat ci wàllu taxawaay te dinañ ci def suñu loxo parce que nous le devons à ce pays loolu moo waral ñu jóg ak ñeneen nit yi nga xamante ne dañu ànd ak ñun ci ngëm-ngëm ànd ak ñun ci principe ànd ak ñun ak ay valeur xam ni réew mi bu nekkee juguñu pour defar ko ah euh, première conséquence yi nga xamante ne moo ci nar a judd ñun ñoo koy vivre ñun ñi ñoo koy vivre ba pare suñu doom yi di ko vivre ndax tey ñëpp xam nañ ni ci àdduna bi ne nit ki mën na dem ba jàng fii Sénégal doomam yi am ay lijaasa te mënuloo wax waat ne kooku lijaasa bi ko amee dina mën a liggéey loolu il faut mu arrêter li tax ñu mën ko arrêter parce que am nañu ay jumtuwaay yu ñu mën a permettre ñu mën a jox à chaque citoyen sénégalais chance bi ngay mën a permettre mu mën a gis boppam ci réew mi moo xam ci wàllu liggéey la moo xam ci leneen ak leneen la ñun nag ci tànk yooyu la ñu nekk nag nekkuñu ci tànku euh, caaxaan nekkuñu ci tànku euh, ay xaste nekk ñu ci tànku euh, débat personnel li ñu su li nga xamante ne moo ñu soxal moom mooy relever le niveau du débat indi ay solutions aux problèmes qui se posent à ce pays loolu moom mooy ñun suñu taxawaay taxawaayu jàmm la taxawaayu jàmm la taxawaayu indi ay saafara la may préciser euh, euh, ci jiiri saabalkat yi fi nekk ne ñun opposition la ñu nekk Nous sommes un parti politique que nous venons de constituer qui se positionne dans l'opposition te posi positionement boobu dafa di doon lu leer te li tax ñu positionné wu dans l'opposition parce que dañu bëgg am suñu liberté d'expression suñu liberté d'action dañ ko bëgg am ndax li doon euh, yomb pour ñun moom mooy ñëw rek ñu bootu ci ginnaaw kenn ne nañu dem mais dañoo jël choix bi gën a jafe moom mooy nga demal sa bopp parce que dañu gëm ni principe ak valeur yi war tax réew mi mën a dem de l'avant loolu ñun ñoo ko war a mën a incarner ñun suñu bopp tey bu yàlla defee incha allah ñu mën a dem ba incarner le projet politique que nous souhaitons proposer aux Sénégalais en 2024 su boobaa nit yi dinañ xam ni liggéeykat yi ñëw nañu. liggéeykat yi ñëw nañu te ce pays li mu soxla maa ngi leen di euh, rassurer que li Sénégal soxla pour assurer son développement de façon définitive mu ngi ci biir réew la question se pose en termes de choix et de priorité. et ñun nag choix yeeg priorité yooyu xam nañ fan lañ koy jaaree pour mën a indi solution yi nga xam ne moom la Sénégal soxla ndax loolu mooy suñu liggéey plus de 15 ans mi ngi nii ñu ciy ciy dox ñu ngi koy defal yeneen réew yoo xamante ne mënatuñu toog naan di ko defal suñu réew li nga xamante ne nag moom mooy suñu taxawaay wax naa leen ko moom mooy indi des solutions indi euh, euh, li nga xamante ne moom la askan bi soxla moom la réew mi soxla pour qu'on puisse asseoir son développement ci tànk yooyu la ñuy fekk te kenn ñu fekk ci beneen tànk dinañ ko def man ak ñi ma àndal ñëpp ci teggin dañ ko def ci yar parce que loolu lañuy ñuy soxla ci biir réew mi jàmm nit yi di mën a waxante di mën a jëfalante ci jàmm ak yar ñun nag loolu lañuy ñuy woote kenn ñu fekk ñuy woote nit ci xuloo wala ci saaga wala ci xaste fu ñu mënti woo ci suñu liggéey li ñuy jël comme condition la seule condition bi nga xamante ne dañ ko nañ ko nangu ci nit moom mooy principe ak valeur dès l'instant que am na ko rek ubbeel nañ ko suñu loxo ne ko bismillah ñëwal ñu liggéey ma leen di wax tamit ne leen ñun doxaleen bi nga xam mooy suñu doxaleen amul président mooy décidé ñeneen ñi topp président beeg jaaykatu gerte bi ñoo am la même dignité amul benn benn benn xalaat boo xamante ne dinañ ko gis ci biir askan bi jàpp ne noo loolu euh, xalaatu ko tuuti la donc duñ ko jëfandikoo képp koo xamante ne am nga xalaat ci réew mi wala am nga loo xamante ne mën nga ñu ko euh, jagleel tàllal nañ la suñu loxo ndax li ñu tax a jóg. du lenn lu dul askan bi du lenn lu dul Sénégal moo tax bu ñu ñëwee tey ba mën a yeggee loolu askan bi ah dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di gërëm sama wajur bu jën bi fi nekk ah, di ko di sàkku ci moom ñaan ndax liggéey bi nga xamante ne moom la ñu sumb nii xam nañu du bu yomb ah, di ñaan kilifa diine yi ñu ah, jàppale ñu ci ñaan di ñaan sénégalais yi ñu jàppale ñu ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñu que ñoom rek ñoo tax ñu dugg ci liggéey bi ndax bu nekkoon suñu bopp la kon xam naa ne duñ fi sax taxaw di wax waaye dañu jàpp ne nit ki bis boo demee ba taseeg sa borom ah man bugguma di lay ak suñu borom ne ko ah bi réew mi di yàqu wala bi ma gisee am na yenn situation yoo xamante ne taxawul lan laa def xamu lu ma def bëgg naa taxaw ne suñu borom lii moo nekkoon sama taxawaay te jéem nañu te gëm naa ni loolu ñuy jéem ak dëgg di ko jéem ak pas-pas yàlla dañ ci defal sutura te bu ñu defalee sutura ci loolu lépp loo xamante ne moom la askan bi soxla dina ci gis boppam parce que loolu moo ñu tax a ko defee ma leen di gërëm bu baax a baax baax di leen di woo euh, vraiment ci liggéey bi euh, di ñaan suñu borom yàlla nañu yàlla jàppale yàlla sàmmuñu sàmm réew mi ndax ñun amuñu lenn lu dul réew mi donte nekkuñu fi nee nañu bëccëg ngi ci kaw waaye xel ci suuf ñun loolu moo ñu dal Sénégal lépp lu ñu am ci àdduna Sénégal moo ñu ko gënal moo tax. heure engagement bu jotee kon dañuy jóg sóobu ci engagement bi heure engagement bu jotee dañuy sóobu ci engagement bi donte amoon nañu ay appréhension ci politique bi mais di ciy sóobu parce que loolu mooy yoon ma leen di gërëm bu baax a baax bëgg naa lim képp ku fi nekk ndax képp ku toog ci salle bi tey mérité nga ba jaar ci sa tour képp ku fi toog mën naa jaar ci seen tour ndax mérité ngeen ko ma leen di wax nii jël naa à témoin suñu borom ne leen engagement bi ñu jël nii bis bu ñu naree dem bay xalaat di ko def pour ay intérêt personnel kon maire sax bëgguñu ko chef de quartier sax soxlawuñu ko lu ñu bëgg mooy lépp lu ñuy mën a def toutes les actions que nous allons mener dans le cadre de nos réflexions dans le cadre de l'action publique lenn du ko tax a jóg lu dul askanu Sénégal nous en prenons l'engagement et nous en faisons la promesse ñu ngi leen di gërëm Euh, bu baax ci seen teewaay euh, di leen di euh, remercier vraiment du fond du cœur di wax alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf merci beaucoup. micro. parti euh, opposition la ñu bëggoon xam ndax avant nga koy euh, créer jot nga dem ci ñoo xamante ni say naataangoo la maanaam ñi nga xamante ni dañoo nekk ci opposition bi nga waxtaan ak ñoom est-ce que aussi fas yéen mooy première question bi est-ce que aussi euh, fas yéen nga xool ñi nga xamante ni tamit ñoom ñooy parti opposition yi fi nekk ñu am doole bi nga dem ànd ak ñoom liggéey ak ñoom. c'est quel organe. Actubuzz Fatou Dione. Actubuzz Fatou Dione. oui une autre question. quel organe c'est asalaamaaleykum euh, Petit Gallo euh, journaliste à Univers Info. Univers Info oui. voilà asalaamaaleykum euh, ñu ngi nuyu assistance bi yëpp di nuyu monsieur Niang di ko féliciter ci li nga xamante ni mooy rassemblement bi mu def pour lancer li nga xamante ni moom mooy parti alors sa première question ma ngi dem rek li nga xamante ni moom mooy ñi mu tuddee mouvement mooy jiital wareef. ni bëggoon a xam rek sot bu mooy euh, wareef ci li nga xamante ne moom mooy engagement bi nga jël mooy engagement politique merci. ok euh, oui vous vous la organe. Euh, Sénégal Direct. Sénégal Direct Nana Rassoul. def na 15 ans d'expérience est-ce que mën nañ xam yan activité nga mëne au sein du Sénégal bu fekkee mu mën ci ñëwaatal parce que peut-être am na ñoo xam ne ñu ngi suivre c'est la première fois ñu gis la bu aussi def nga ay activités peut-être amul accessibilité bi wala information bi explique est-ce que mën nga ñu si revenir à s'il vous plaît merci. d'accord je pense que c'est bon. question. C'est bon. Euh, il a plus de questions. ah dafa am benn question booy posé ok. alors moo continuer ci euh, deuxième question bi ndax euh, dañ fi tudd wàllum rupture ci li nga xamante ni moom mooy politique ici au Sénégal mais gis nañ que ni euh, folklore bi dafa xaw a am ci li xamante ni moom mooy dajaloo bi ndax gis nañ ni politique lu bari boo koy def xaalis ay tax te gis nañ fi ay séddale koppar rek ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen géwalu juddu di bi ñëw taxaw di wax ak yooyu noonu bëggoon a xam. ndax yow ci mouvance boobu noonu ngay continuer wala rupture bi ngay wax loo leen di dund dëggantaan la. ok d'accord merci. waaw donc euh, première question bi euh, soxna si ñu ngi lay gërëm bu baax euh, di xam ndax euh, defoon nañu ay concertation ak ñeneen yeneen parti politique waaw ñun bi ñu décidé bi ñu décidé jël engagement pour mën a servir Sénégal. S'il vous plaît, un ñu mën a déggoonte. bi ñu defee le choix de l'engagement li ñu mettre en en avant mooy ay principe comme ni ma ko waxee sànq ak ay valeurs ndax dañu jàpp ni euh, réew mi su nekkee compétence euh, ak xam-xam yàlla daf ñu yàgg defal sutura Sénégal façon compétence boo xalaat mi ngi biir Sénégal euh, bépp compétence bi nga xam ne soxla nañ ko pour mën a développer suñu réew mi ngi biir Sénégal et d'ailleurs sax. am na àdduna ci biir àdduna bi dëkk ñu bëri compétence su sénégalais yi la ñuy jëfandikoo pour di mën a développé wu. donc ñun bu ñu xamee loolu duñu exclure kenn waaye dañuy liggéey ñoo xamante ne gëm nañu ñun lu ñu gëm képp koo xamante ne gëm na suñu principe ak suñu valeur rek dañuy ubbi suñu loxo pour mën a liggéey ak ñoom ndax ñun dañu jàpp ne engagement bi ñu jël nii du engagement personnel du suñu personne ndax ñun suñu personne du dara ci histoire Sénégal ku ñëwoon tey di liggéey ak ñun ñu gis ni yow yaa ñu gën a gëm li ñuy def amuñu benn problème sax di effacé wu. parce que li ñuy mettre en avant mooy Sénégal ak le sort du citoyen sénégalais donc loolu moo tax euh, ma mën a tontu sa question boobu te la wax ni am na ñoo xamante ne euh, waxtaan nañu ci ay possibilité de de de collaboration ku mel ni juge Dème bi fi toogoon sànq euh, nekk nit ku ku am solo nit ku baax koo xamante ne vision bi ñu am. ci liggéey vision bi ñu am ci naka la réew bi war a tëddee dafa épouser moom it ay contours vision donc loolu xam naa ne bëri na biir Sénégal donc dinañu euh, dox ay jéego euh, ndax lii ñuy def nii ñun rek mënuñu ko il faut que ñu ubbi yaatal waxtaan ak nit yi yi nga xamante ne ils ont les mêmes contours ils ont les mêmes visions pour que ñu mën a ànd ci liggéey bi donc loolu laa mën a euh, ci sa ci sa ci sa question waaw donc deuxième question bi sur la définition de wareef moom la waaw xam nga wareef dès l'instant que doomu aadama juddu na rek wareef tegu na sa kaw ndax ñun li ñu gëm ni bu Sénégal jiitalee wareefam ci citoyen yi citoyen yi jiital seen wareef ci réew mi kon je crois que nit yi dinañ jógee fépp ci àdduna bi pour mën a dëkk ñu suñu réew loolu la ñu bëgg a indi ñoom faire en sorte que chacun chacun doomu aadama bu nekk bi Sénégal lépp lu muy def du matin au soir jëmale ko ci réew mi na ko def en terme de principe na ko def en fonction de son devoir vis-à-vis du pays lan mooy taxawaayam xam nga da ngay dégg souvent nit ci di euh, vitupérer état non état état état mais nit yi dañuy fàtte ne état ñoom tamit la moo tax ñun li ñu bëgg mooy am amener les Sénégalais a cultiver le devoir ba devoir doon état d'esprit parce que devoir bis bu demee ba doon état d'esprit day épouser benn contour circulaire te bu épouser benn contre circulaire rek cest dire que amatul lenn loxo xamante ne dinañ ko ragal ci biir réew mi ñun nag ci tànk yooyu la ñu nekk nous voulons que le devoir devienne un état d'esprit loolu moo tax ñu tuddee suñu parti jiital wareef le devoir en mouvement parce que devoir nekku loo ba ne da koy def vivre ko après nga arrêté il faut que ça soit un état d'esprit liggéey boobu nag c'est un travail de longue haleine mais gëm nañ ne bu ko sénégalais yi épouser bu ñu bu ñu compte bu ñu épouser les contours de ce que devrait être leur devoir je crois que incha allah li nga xamante ne moom la ñuy wut suñu borom dinañu ko defal. Euh, euh, soxna si Sénégal direct yaa ngi laajte euh, yan activité laa mené au Sénégal waaw donc yàlla def na ci samay activité am na ay dirigé naa fi ay réformes mais dinaa la jox benn exemple bi nga xamante ne c'était entre deux 2011 et 2014 ndax ku ne xam na bu nekkee am na fi ay spécialistes. de la justice euh, donc dinañu mën a euh, confirmer li may leen li ma leen wax nii euh, Sénégal en 2011 ñaari ressort ñoo fi amoon yuy mën a traité li ñuy wooyee les appels muy Dakar ak Ziguinchor léegi dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire dans le cadre de la de réforme qu'on le programme sectoriel de justice man maa ko dirigé woon réforme boobu moom moo permettre ñu def li nga xamante ne moom mooy la réforme sur la carte judiciaire pour équilibrer le traitement des rôles au niveau national jëlee euh, li nga xamante ne moom moo moo nekkoon deux cours d'appel Dakar ak ak Ziguinchor yóbbu ko ci cinq kooku nekk premier élément benn bi nekk euh, Ziguinchor benn bi nekk Saint-Louis benn bi nekk euh, Dakar benn benn bi nekk Thiès bu nekkee Thiès nga dëgg sax doon nga gis nii avant on avait un tribunal départemental léegi maintenant on a une cour d'appel Euh, avec un tribunal de grande instance kooku mooy première euh, euh, réponse bi ma exemple bi ma la bëgg a jox mooy ku ne xamoon na ne Sénégal dafa amoon lu ñu woowee les cours d'assises cours d'assises dafa doon jur ay ay ay ay ay gàllankoor yu bare ci doomu aadama yi nga xamante ne dañu daan nekk en situation de détention préventive man maa bind benn rapport tuddee ko benn rapport sur la gouvernance carcérale boo xamante ne rapport bi moom moo déclenché la réforme du code pénal et du code de procédure pénale ñu supprimer les cours d'assises pourtant magistrats yi nga xam ne ñoo ngi Sénégal moo xam c'est des magistrats du parquet wala des magistrats euh, euh donc euh, euh, euh, du siège merci boo xoolee bi ñuy def réforme boobu kenn àndu ci ndax dañ ma daan wax ne ma cour d'assises dafa doon loo xamante ne lu solennel la nit ci dañ ko bañoon mais dama bind rapport sur la gouvernance carcérale waxtaan ak ministre les cours d'assises suppression boobu nag moom moo jur li ñuy wooyee les chambres criminelles permanentes moom ñooy euh, euh, beneen exemple boo xamante ne de liggéey bi ma la mën a tontu et puis aussi yàlla euh, y a le a fait sur donc la collégialité donc des des décisions de justice ndax dañu gëm ni doomu aadama bu naree dem ba tribunal juge nar ko dugal biir kaso dafa il faut mu doon loo xamante ne c'est c'est de sens il faut ñu def ko ak responsabilité moo tax man dama jàpp ne tribunal heure bu waree jël décision la décision doit être collégiale avec le juge des libertés euh, et le juge des détentions à côté nga xamante ne xam na lan moo ànd ci jël doomu adama dugg ko biir kaso ndax y a beaucoup de vies qui ont été perdues comme ça des gens yoo xamante ne dugal nañ leen détention préventive xamuñu ndax def nañu xam nañu ndax def nañu wala wala defuñu et pourtant euh, da ngay gis des gens qui peuvent rester en prison wala en détention préventive pendant 4 5 ans wala pendant en tout cas bu nekkee en affaire criminelle la su nekkee en affaire pénale la euh, wala correctionnelle ni ki day nekk en prison pendant 2 ans alors que buñ ko jugé woon peut-être que euh, décision de justice bi mën na bañ a mot 2 ans donc lu mel noonu boo koy gis il faut que nga nekk di euh, def ay propositions yoo xamante ne qui permettent aux décisions finalement d'être prises de façon de façon individuelle donc loolu laa mën a tontu ci ci sa question. mm waaw euh, question bu am solo nga posé euh, soxna si ndax euh, Sénégal moom mooy l'un des seuls pays au monde boo xamante ne nit ki da ngay am benn laago rek rek société bi rejeté la loolu du yoon amul benn sénégalais en réalité question boobu ngay posé ñun dañ koy traité dans notre projet mais dañ koy traité de façon holistique ndax laago nekkul loo xamante ne taar la c'est pas un problème l'essentiel mooy. nit ki quelle que soit sa situation de handicap li am solo moom mooy nga mettre ko les conditions et l'environnement qui lui permet de pouvoir s'épanouir et mu mën a jàng am ay lijaasa mais mën a liggéey également et loolu du nekk nekk jafe mais c'est une question de choix et de volonté mës naa dem seeti benn euh, centre boo xamante ne ay euh, way laago ñoo fa nekk bi ma demee ba seeti leen waxtaan ak ñoom dama ne leen ñii en principe les collectivités locales devrait prévoir une part de la commande publique ndax dañuy nekk ay nit yoo xamante ne dañu am jom da nga fay fekk ay pères de famille et des mères famille loo xamante ne seen différence rek ak mooy mooy handicap bi nga xam ne moom la ñu am mais ñooñu il faut leur donner une part la commande publique sur li nga xamante ne ci la ñuy yëngu ñun nag ci réflexion yooyu la ñu nekk parce que euh, boo jëlee li nga xamante ne moom mooy sa secteur privé secteur privé ku nekk moo ko yor nit ku am euh, ay cëram yëpp nit ku am laago wala ku mënti doon l'essentiel moom mooy prévoir l'environnement à partir duquel nit yi mën a gis seen bopp te ñun ci tànk yooyu ñu nekk moo tax euh, handicapé yi euh, nga xamante ne mën a dab ku nekk ci àdduna dañuy am benn place de choix ci liggéey bi nga xam ne moom lañ bëgg a def incha allah waaw donc seen bi posé la question euh, euh, du folklore waaw man dama xamoon ndax euh, folklore boobu euh, dama xamul sax lan mooy folklore donc peut-être que dinaa xoolaat euh, signification bi mais li ma mën a wax mooy dañu jóg pour indi benn vision bu bés Sénégal nag boo ko bëggee changer dafa am ay taxawaay yooyu am te lu bokk ci sa réew mënuloo ko beddi lu bokk ci euh, askan bi dafay da ngay da ngay xool noo koy defaree mais euh, su nit yi jógee di am lu ñuy jëfalante seen diggante loolu mënuma considérer ne loolu dafa bokk ñëm ci suñu projet wala dafa bon wala dafa wala baaxul du am benn regard de jugement là mais li ma mën a wax mooy li ma li ma mën a wax mooy ñun Sénégal bokk na ci li ñu bokk na ci li ñu tardeel Sénégal bokk na ci li ñu tardeel mooy ñuy renier li nga xamante ne moom mooy suñu histoire mooy suñu caada xam nga tey euh, ku jóg tey am lu mu dégg xolam sedd si mu ekkati mu jàll ko mu ekkati dara joxe dara loolu pour man lu ñuy rafetlu la parce que ñun humanisme li ñuy woote man képp ku jóg def benn action boo xam ne sa xol moo ko jiital kon action boo dee noonu action bu dëgg même bu nekkee ñu ngi am ne aussi les gens à user de leur raison pour aller de l'avant mais damay jàpp ne loolu du lu bon ndax war nañu gëm suñu bopp gëm suñu bopp mënul weesu ñu dund li xam ne moom mooy suñu jaar ak suñu suñu suñu suñu suñu cosaan donc moo tax euh, malheureusement dafa am benn mbir boo xamante ne euh, ñun bàyyi nañ ci xel ba pare donc may apple le peuple sénégalais mu ciy bàyyi xel gis nga euh, acculturation baaxul aliénation culturelle baaxul ndax euh, boo jàppee li nga xamante ne moom moo def sa histoire def sa cosaan doonte am na loo xam ne ñun gëm nañ ko parce que dañu bëgg une société moderne mais booy ut modernité da nga koy def sur la base de li nga xamante ne moom nga moom ba pare moo tax je considère que loolu du folklore jërëjëf merci beaucoup